Allô, c'est Jaraf Alassane maire de la commune de Khelkom Biram, responsable national du syndicat des travail de la construction. Je suis venu à l'aéroport aéroport Ziguinchor parce que li fi xew tey c'est inadmissible nekk na loo xam ne nit waroon yaakaar na noonu dépassé nañ loolu lan moo fi xew ñun ay passagers lañ Air Sénégal jënd suñu billet réservé plus de 4 jours nous avons tey ñu ñëw jógee Kolda def 4 heures de route ñëw pour nek salle d'enregistrement